maa leen ko wax di yàgg naa leen ko am da nga am ko may xaas la ñu am ñoom ñu ngi fekk nekk ci a ci xas yi xaas la ñu am xaas la ñu am ne tawee ba léegi te ngeen mënul ci fàggu waaye rek dañ ko bale xaas ngeen am am na waaye yéen xaas ngeen bismillahi sos na ma sama wax ci tuddu turu buur bi. arrahmaani buur bay xéewalaa koon ñépp ci aduna arrahimi buur bay ajiram ku ko soob ci alaxira wasala yàlla na julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam di muhammad wa ala ali ak ñoñña wa sahbi ak saabaam yépp wa salamatuma dolliku musal tasliman ak dollik musal wa sahida maa ngi koy ñaan moom yàlla ba dana seede lii ñal ma bi waddaaxee ci bàyyi gi ma lépp loo xam ne jaayante naa ko ak moom mu ne maa ngi tàmbalee ci turu yàlla yàlla muy xéewalaa kon ñëpp ci àdduna yàlla mi nga xam ne mooy aji yërëm ku ko soob ci àlaxira maa ngi dagaan ci sunu borom subhaanahu wa mu julli ci yonent bi sallallahu alayhi bi alihi wa sahbihi ajmain julli ci moom julli ci waa këram ak saxaabaam yëpp te dolli musal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci yonent bi di sunu sang bi turam di Muhammad yàlla na julli ci waa këram ak saabaam yëpp te dolli ko musal yàlla maa ngi koy ñaan mu seedal ma bi waddaaxee waaw gi waaw gi ci boppam dañ koo fataxa boo ko tag wi boo ne wi da am na beneen max naa bu mu lay jox mooy kuy tàggatoo koo xam ne dafay tàggatoo da ngay dégg ñaan wi da waaye biñ ne waddaaxee nag mooy li nga jàng ci alxuraan maa waddaxaka suñu borom ne ko maa waddaxaka ay tarakaxa mooy bàyyi hut la bu ñu la woo laxwi mooy tarrakaha aqalaha mooy loo xam ne da nga koo bàyyi bu ci basat aqala xanha li alquran wax ne maa wadaxaka rabbuka wa xala sa borom kat bàyyiwut la tey bañut la bu defee ne wax yu gi ñëw ci yow dégg nga sa borom dalaa baax déedéet sa borom bàyyiwut la de kon wadaahi gi mooy nako ko yàlla seedal lépp loo xam ne bàyyi na ko rek ne dootul ca delluti soxlaatul ko marsis bam jaante yàlla ci na moom kon wa sayda maa ngi ko ba dana seede lii ñel ma bi wa sama bàyyi lépp loo xam ne jaay ko ko waa jantu jublu naa rabal aradina borom suufi juróom-ñaar yi ak asamaan ya bi sama nii ànd sama njëg wa sama nii te sama njëg bàqin yàlla muy aji des ji sama kawel na ko moo yëkkati na ko mu ne jublu naa yàlla muy borom suufi juróom-ñaar yi te moom asamaan yi damaa jublu yàlla ànd koog sama njëkk mooy li ma yàlla jox ba ma jaayee marchandise ma soxlaatuma ko la ma yàlla jox te nee na sama njëg yàlla muy aji sax ji kawel na ko loolu mooy njëg goo xam ne du dog mukk waxtu ne day gën di bari waaw moo tax mu ne waa jaxtu jublu naa dégg nga rabal aradina borom suuf yi juróom-ñaar wa sama ak asamaan yi bi sama nii ànd ak sama njëg njëg gi ma yàlla jox damaa jël sama lépp delloowaat ko yàlla wasaama ni te mbir moom sama njëg ba na yàlla muy aji daji sama yëkkati na ko mooy njëg daal waxtu day gën di yëkkati ko di gën kawe. Sahida moom sun borom seedeel na lii ñel ma bi an na nii ne man borom Touba. laa arjixo diit may dellu mukk ilaa ma bixe jëm ci sama njaay dégg nga wa marjixo dana delloo njëgga janaa bi sama wàll mu a yàlla ci boppam moo ma seedeel nangul ma ne ma man kat la ma ko jaay dootuma ca delloo nee loolu yàlla ko seede mooy li mu tëkkee xasida gi rek wa sahida lii bi waddaxee yàlla na ma seedeel ne bàyyi naa lépp lu ma ko jaay moom la feeñal fii max naa bi yàlla ci boppam moo seede ne man sëñ Tuubaa la ma ko jaay dootu dellu si ci man mooy marchandise ma daal amul xàcc jaay naa ko yàlla ba noppi njëg gi nag mooy ñëw sama wàll waaye marchandise moom kok moom dootu ñëw mukk sama wàll moo tax moom yàlla lii ñeel ma ne bi ànd man borom tuuba xaadimul qadim wala xaadimul muxtaar laa arjoxo duma dellu mukk aa ilaa bi xee jëm ci sama njaay ma wa marjoxo dana delloo njëgg jënaa bi sama walla la ko jaay dootuma ci dellu dootuma ci dellu tabaarakallahu waaye njëggi waxtu ne sunu borom da koy delloo mi ñëw sama wàll xaraba daw na iblisu iblis wa man walaw ak képp ku méngoog moom li xayri nax wi daw jëm ci furut sama wàll xat na faahu dàq na ko allahu yàlla mu ne iblis ak njabootam yépp famem yépp njabootam gi nga xam ne li iblis xëy rek ci la ci la ñuy xëy lim bëccëgoo la ñuy bëccëgoo lim gontu ak lim fanaanoo ci la ñuy fanaan nee na ñoom ñëpp daw nañ jëm ci furut sama wàll iblis ak njabootam ñëpp dootuñ ma jublu mukk te yàlla ci boppam sax moo ko dàqal boppam xad na faahu laafu daxa woo na ma nag mi daa di samay daxa wa xilaami ak samay xalima li sukóor jëm ci cant talaasu talaasumi ak sama tëquuk asamana njëgga min rabbi mu ngi tukkee ci sama boroom ak sakkoor kadi ab santaakoon mu ne sama daxaa bopp ak xalima gi dañ ma woo ngir ma jëm ci cant sama boroom xalima gi daal waxtu ne mook daxa ji dañ maa ngir may sant sama borom waaye ak lama ma jaay yàlla njëg ci boppam waxtu wu ne ma di ko tëqoog am njëg gi daal waxtu wu ne day tukki ci sama borom di ñëw ci man may tëqoog moom te du jeex mukk maanaam Sëñ Tuubaa njëg gi mu séq yàlla nekku ne dañ ko koy fayte rek mu jeex de déedéet heure bu bis bu ne jamono ju ne yàlla da koy fayta du jeex moo tax mu ne daxa woo na ma mi daal di samay daxa waxilaami ak samay xalima li sukkoor jëm ci cant talaasumi sama tëqoon ak asamana njëg gi min rabbi ma ngay tukkee ci sama borom asakoor kadi ab santaakoon njëg gi dox sama digganteeg sama borom gannaaw moo ko jaay marchandise ba nëppi damay tëqoog moom waxtu ne day tukkee ci yàlla di ñëw ci man. lam yalhuni jubluhun ma say un dara mi na la di bàyyi ko ca la nga xamee ne istara jënd na ko rab rabbi sama borom mi ni jëlee ko ci man wastatara nëbbu na ko li xëy de ñeel ku dul man ko. mu ne li nag moom. nga xam ne yàlla jënd na ko ba noppi marchandise ma daal yàlla jënd na ko loolu dootu ñëwaat ci man kon day mel ni damaa xàcc wala yàlla wala yàlla ci boppam dafa xàcc te ñun ñaar kenn du ci xàcc kon amul lenn loo xam ne yàlla jënd na ko ci man te muy marchandise ma ma ko jaay gannaaw ba ma ko jëndee ba nëppi marchandise ma dootul ñëw ci man. te yàlla ci boppam loolu kenn xamul ko man ak moom rek ñoo ko xam nëbbu na ko ku dul man kon moom sëñ bi lam jaay yàlla xam na ko waaye ku dul sëriñ bi nag ak borom xamoo ko moo tax man wastataraa nëbbu na ko li xëy ku man yaquudu nii dana ma womat nag a tawfiiqu tawfiiqug yàlla wa sawaabu ak njubam ga wan qaada womatu na li ñëw ci man al ilhaamu enki walug yàlla dégg nga wa sawaabu ak yoolu yàlla yi mu ne waxtu ne tawfiiqug yàlla yàlla kum ànd ak ci anamuk tawfiix lépp ñëw ci yow mu ne tawfiixug sama borom moo may womat ak njubam gi njubam gi mu jox yonent bi alayhi salaatu salaam ak tawfiixam moom yàlla moo may wommat waxoon naa la lépp lu yéeg ci kaw asamaan la ca gën moo di ixlaas selal lépp luy wàcc ci kaw asamaan ñëw ci jàmm bi nag la ca gën moo di moo di lu ñuy tuye tawfiix moo tax suñu boole ñaan ko ci tuxfatu bi hurmati sidiq wal faarox mu ne jut liya bil ixlaasi wa tawfiix gis nga moo tax nag sama tawfiix te mooy tawfiixu yàlla waxtu ni moom may womat ak njubam gi waaye waxtu ne lu ñuy tuddee ilham inkiwal yàlla ci boppam inkiwal waxtu ne day womatul boppam di ñëw ci man lépp lu ma bëgg a xam mu leer naññ ci man yàlla daf ma koy inkiwal ca sens ci sama xel dégg nga waaye yoolu yàlla yi moom duñ dog mukk di dukkee ci yàlla di ñëw ci man ba tey kon yaquudi ni daan moomat a tawfiqu tawfiqu yàlla wa sawaabu ak njubam gi wan xaada womatu na lii ñëw ci man al ilhamu inkiwalug yàlla wa sawaabu ak yoolam yi naa addama ira dama iria oma waalaha ak lépp lu méngoog moom bi siri mbux nin jandee ko nag mbootum aji doylu lam yesal koob mukk ilaaha nekk buur nekk yàlla mu ne jaay naa lépp luy dama ir mooy mbir moo xam ne kenn du xam xaddat ba kenn du xam la ci biir dama ir rek la tudd ak lépp lu méngoog dama ir rek laj ba dugg ak ka ba dugg ak yi nga yi nga xam ne léeg mu ne fukk ak juróom ñeent la léeg-léeg mu ne juróom ñett la wala léeg-léeg mu fukk ak juróom benn xeet yooyu yëpp danga ko jàng ci mbindam waaye li ci gën a siiw mooy dama iri ak laj ak ka ñoo gën a siiw ci lim jaayanteeg yàlla mu ne lépp nag dama koy jaay ci gàttal jëndee ko mbuutum aji doylu maanaam lam jaay boo ko doon misaal yàlla dane ko am naa siru boo xam ne faw bala ma la koo jox da ngay nangoo jaay da nga may nangoo jaay lii ak lii ak lii ak lii mu nag ay dama ir ak wama waalaxa sëñ bi jaay lépp yàlla suñ borom jox ko mbuut ma xam nga léeg-léeg yàlla rek tabaarakallaahu faw nga sonn nga jox xaalis bu bari te tur wa ngay wut sax mën naa bañ a barkel yu mel noonu sëñ bi nag bim jaayee lépp yàlla da koo jox mbóot moo xam ne kenn mosu koo xam te kenn du ko mos a xam moo tax nag biaxtu jaay naa ak damaa ira la ñuy tuddee damaa ira wama wala ak lépp lu méngoog moom ñu ne ba nga ko jaayee njaay mu ne kay am na loo bëgg dañ la jox njëg mu ne bi siri muxnin maa ngi ko maa ngi ko maa ngi ko jaayee nag dégg nga bi sirri muxnin ci mbuutum aji doylu maanaam bi sirri muxnin ci sekkereb aji doylu ji te mooy yàlla moom mi xam lam yesal dañul mukk ilaaha nekk yàlla ju ñuy jaamu yàlla mi xam ne dañul mukk di nekk yàlla ju ñuy jaamu te du mos a dëñ mu ne bi ma jaayee lépp lii damaa di ak lu méngoog moom dama ko def ci siri muxnin waaw ci mbuutum yàlla ci sekkereb yàlla muy aji doylu ci laa ko defee nga xam loolu kenn du ko xam ci gàttal moom rek moo koy xam ak borom moo tamit jaay naa lépp lii damaa di ak lu méngoog moom bi siri nin ci mbuutum yàlla muy aji doylu ji nga xam ne lam yesal dañul mukk ilaaha nekk buuru waa jaxtu jublu naa rabbi sama borom al yow ma tey jii bil wafa yi ànd ko matal kóllëre min baax di sidiqin gannaaw ak dëgg goo xam ne sii ba jaxasees na ko bi safaay ak sell mu ne tey jii jublu naa sama borom li doxoon sama diggante sama borom yépp matal naa ko moo tax tey jii sama lépp laa jërë jébal ko sama borom suko ko defee nag gannaaw ba ma joxee sama lépp sama borom tey jii ànd ko matal kóllëre gi doxoon sama diggante ak mu ne damaa ànd ko dëgg goo xam ne dañ koo jaxaseeg sell maanaam dama lal sama tànk dama teg sama tànk ci dëgg goo xam ne dëgg gi ci boppam dafa ànd ak sell daf dañ koo jaxase ak sell waaye jaxtu jublu naa rabbi sama borom alyoma tey jii bil wafaa i ànd koog matal kóllëre min baax di sidiqin gannaaw ak dëgg goo xam ne dégg nga min baax di sidiqin gannaaw ak dëgg goo xam ne sii ba jaxasees na ko moom dëgg gi ak lan bi safaay ak sell mu ngi mel ni meew moo xam ne dañ ko suukar xam nga mën nañu ànd kon dëgg gu gis lam mën a àndat mooy sell dëgg daa war a sell dëgg mën nga ci nekk te fekk sellut kon gis nga ko. dóor yi samay këri bopp wama ak lépp loo xam ne ixtiira tànnalees na ko lii ñeel ma min jiiraani ci ay dëkkandoor naa jiitun aji mucc lañu min jaalibil xusraani ci lépp luy bijji perta laa akbar mu ne man sama këri bopp ak li ma yàlla tànnal ci ay dëkkandoor yëpp ma am leen ay waay sëñ Tuubaa de jar naa dem dëkkaaleeg moom nag mu ne li ma yàlla tànnal sama kër yi daal masalan sama dëkk yi ku ci dëkk kon ku dëkk Touba baa nga dëkk feneen foo xam ne sëñ Touba ko sanc baa mu joxe ndigal ñi sañc fa ñëpp ay dëkk ndooram lañ mu ne ñoom ñëpp nañ xam ne mucc nañ ci perte kat ku dëkk samay kër doo perte samay dëkk ndoor duñ perte ñoom ñëpp mucc nañ ci perte dóor yi samay kër yi bopp yëpp dugg wama ak lépp loo xam ne gis nga ixtiira tànnalees na ko li ñel min jiraan ci ay dëkkandoor kem ku dëkkab sëñ Tuubaa yàlla moo la tànn nga ñëw dëkk moom te mucc nga yàlla na musak mucc rek mu ne la demal nga dëkk dëkk dëkk dëkkaaleeg sëñ Tuubaa mu ne ñoom ñëpp ci am ñaari kuréel yi sama dëkkandoo rek ñi ñëw samay kër dëkk fi naajeetun aji mucc la min jaalibil xusraani ci lépp lu ñuy tuddee perta aqastu ba tey man borom Tuubaa jàpp naa sikran alquran ji nga xam ne jaa dikkal na ma min daaxe tukkee ci aji woote laxoo jëm ca moom waxat saraxtu te mbir moom tàmbali na an wi daaxe wali sama tàggatoo mu ne jàpp naa ba mu dëgër alquran ji nga xam ne dikkal na ma man Sëriñ Tuubaa ko ci yonent ba nga xam ne ab wootekat loxoon yaa ayyuhan nabiyyu inaa arsalnaaka saahidan wa mubasiran wa nasiran wa mubasiran wa nasiran wa wa daa'iyan gis mooy aji woote ji ilallahi bi isnihi wa sirajan muniran dégg nga yaa xayra waax yaa xayra raax yaa xayra daax li si samay ca ma waxi bu ba naafien ci ma da i safien mu ne kon jàpp naa alxuraan ji nga xamee ne dikkal na ma tukkee ci aji woote ja jëm ca moom max naa mooy aji woote ji waaye képp ku muy wax dafa bëgg nga topp ko man Sëriñ Tuubaa léegi nag commencé naa di tàggatoo waaw ah, maa ngi leen di tàggu ñëpp maa ngi tàggatoo ah, ndax alxuraan ci boppam léegi jàpp naa ko ci ka nga xam ne mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam léegi nag commencé naa ak tàggatoo maa leen di tàggu <laughs> tarkala allamani xamal na ma al alimu yàlla muy aji xam ji min la dunu mu tukkee ca moom bi ma ma daal lépp loo xam ne woyoon na waxal rek di mbir moom gërëm naa ko xan walis ko yàlla mi xam lépp xam-xam bu tukkee ci moom daal tukkee na ci moom ñëw ci man mboolem la wëy rek xamal na ma ko moom yàlla lépp lu wëy rek Sëñ Tuubaa ne yàlla wan na ma ko xamal ma ko mu ne man nag gërëm naa ko Cheikh <laughs> mu ne waxat saranto an maa ngi leen di tàggu léegi tey dootu leen mu gisati de waaw commencé naa di leen tàggu ndax lii rek waxinu kuy tàggu toola parce que alxuraan gis nga isaa jaa nasrullahi bi mu ñëwee rek saxaaba yëpp ñi ci féetoon suuf rek ci saayir nii ci ay at ñoom dañoo gëmoon ne saar wi di fi ñëw di tàgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñëw di tàgg yonent bi kon saar yi wax yi jam ko di wax ku ne kenn dootu gis ci suuf dañ dañ toog jamono joo xam ne kenn dootu gis jëmm ci suuf yàlla seedal ma yàlla seedal ma kon day day wane ne moom sëñ Tuubaa lam don kii mat na waxat saranto an wi daaye commencé naa di tàggatoo jaratul mu fee def dara donte mi ngi fii tey jii la fi gën a nekk mais doo gis jëmm ji kat mais sëñ baa ngi fépp waaw waaye kuy wax yi xasit yi boobu li ngay ne wa sayida lii seedal ma nangam te yàlla la koy seedaloo sëñ bi su ko yàlla seedaloo lii kat defatu fi dara yonent bi saa sama kanaa ba muy rek sunu borom seedeel na ko nag al yawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islaama diinan kon gis nga sëñ moo tax mu ne yàlla muy aji xam ji bi ma commencé tàggatoo ci la ma xamal lépp lu woyoon man sëñ Tuubaa gërëm naa ko. yaquudu dana wa matrabul aradina borom suufi juróom-ñaar yi wa sama ak asamaani juróom ñaari dana wa mat sama nii sama njët lii jox ma. waxat sama te mbir moom yëkkatee ne bii ci sama jë bii ci sama jëmm ji sikruhoo téere mbii di alquran yàlla muy borom asamaan yi ñaari ak suuf yi waxtu wu ne jamono ju ne heure bu ne daf may womatal sama njëg te alquran yàlla ci boppam mi ngi ko yëkkatee ci man alquran yàlla mi ngi ko yëkkatee ci sama jëmm ji yëquuru dana womat faw rabbul aladina borom suufi yi juróom-ñaari wasama ak asamaani juróom-ñaari dana womat lii jox ma sama ni sama njëg te waxat sama yëkkatee na sikruhu téere bii di alquran bii ci sama jëmm ji. <laughs> ndeysaan waxat sama sikruhu bii xat sama wa sikruhu bii waaw goog da koy jël def lu ñuy wax koy xabal xat sama gi kon xasida goog di wa sayda lii bi wax daaxee tabaarakallahu mel na ni kon xasida la goo xam ne jeex na léegi dafay dugaat ci geneen xasida goo xam ne mi ngi ko tënkee bismillaahi sos na ma sama wax ci tudd turu buur bi arrahmaani buur bay xéewalaa kon ñëpp ci àdduna arrahimi buur bay aji yaram ku ko soob ci alaxira wasala a na julli allahu yàlla ala sayidina ci kaw sunu sang bi muhammadin turam di muhammad wa ali ak ñoñe wa sahbi ak saabaam yépp wasalamatu mu dolli ko musal tasliman dolli musal wa kaana maa ngi koy ñaan ba dana nekk lii ñeel ma abadan faw bi maa wisuru nii ci loo xam ne daf may bégloo wa sayida koy ñaan ba dana seede lii ñeel ma ci jaay gi ma ko jaay fanweer ak ñett ya maa ngi tàmbali ci tur yàlla yàlla muy xewlaa kon ñëpp ci àddina tey aji yërëm képp ku ko soob ci alaxira tabaarakallahu maa ngi dagaan ci yàlla mu julli ci yonent bi di sunu sang bi turam di Muhammad yàlla julli ci waa këram yëpp ak saxaabaam yëpp te dolli musal yonent bi sallallahu alayhi yàlla maa ngi koy ñaan waxtu ne lu may bégloo mu dolli ma caa nekkal dolli ko saxal lépp lu may bégloo yàlla na ko yàlla doolee saxal ci man maa ngi ñaan yàlla li ma ko jaay mu seede ne jaay naa ba nëpp to soxlaatuma ko nga xasida ga lam ko tënkoon wa sahida lii bi waddaaxee bàyyi gi ci boppam ne bàyyi gi ma ko bàyyi la ma ko jaay na ma ko yàlla seedeel mu ne seedeel ma la ma la jaay kon yàlla seede na sëriñ bi lim jaay yàlla sëriñ bi bàyyi na ko yàlla seede na ko yàlla ba tey seede ne sëriñ bi lam jaay yàlla tabaarakallaahu ba tey yàlla seede na ko waaye yàlla seet ne ne sëriñ bi bàyyi na yàlla ci boppam moo seet ne sëriñ bi kat lim ma jaay bàyyi na ko soxlaatul ko waaye ba tey yàlla moom moo dellu seedewaat ne sëñ bi lim ma jaay seede naa ko ba tey. wa sayda maa ngi koy ñaan ba dana seede lii ñal ma bi bañ xel laaj ci jaay gi ma ko jaay laaj. wasala eggali na lii ci man xataan ci lu dog. jamiho sama nii mboolem sama njëg mi man tukkee ca ka nga xam ne loo aji nekk la ñeel ko alwaraam bi ndefi wa samani ak bépp jamono. nee na mboolem samay njëg jot naa ci ñëw na ci man ci lu amul benn werante mu ngi tukkee ci sunu borom mi nga xam ne mooy ki moom bindee fi moom jamono yëpp njëg gi daal ci yàlla bay ko mu jox ma mboolem njëg gi. sayida seedeel na lii ñeel bi rabbi borom wa asxaadaata seedaloon na alwaraam bindeef yëpp ne bi annahu naka moom yàlla xaada womat na ilee jëmee ci man asura saari alquraan yi. yàlla njëkk a seede seedeel na ma moom yàlla waaye ba noppi bindeef yëpp yàlla seedaloon na leen ne man Serigne Touba sunu borom jël na tabaarakallaahu saari alquran yëpp jox ma. mu ne yàlla ci boppam seedal na ma waaye yemut ca moom rek de ku mu doy de waaye mbindeef yi ci boppam yàlla seedaloon na leen ne man Serigne Touba sunu borom yëkkati na alquran teg ko sama loxo. xarabati daw na al ahda u noon yi wal sada ak way kañaan yi li xëyri duri jëm ci fudut fudut di ma lor si. na ci man ifsaadu way yàq ña mu ne mboolem samay noon yi ma yóbboon ci géej ga ak ñi ma kañaane woon codde yeeg ñëpp daw nañ jëm ci furu di ma lor si ndax ñoom ñëpp benn yéene lañ amoon sama noon yi ñi ma kañaane woon mooy ma lor rek waaye ñoom ñëpp bis ni ko tey daw nañ jëm ci furu di ma lor si képp koo xam ne ab yàqkat la faru na ci man ba seet wicci wa maxa faru na ci man ba seet wicci effacé wu na ci man ba seet wicci ifsaadu way yàq ña way yàq ña daal dootuñ ma jublu dalla niya tegtal na ma allahu yàlla boppam saa nu mbir moom may borom yaxal wasaa suróohin tey borom saraxa wakkafaaniyee fegal na ma àllu soos ñu ñuy tuddee ay sàcc mu ne yàlla ma tegtal boppam su ko defee nag may yaxal ak bind di bind ay téere mooy téere rek waaye ba noppi di saraxa am na wax yoo xam ne moo ko bind ba noppi saraxal ko boppam am na mbind yoo xam ne mbind yi mu fekkoon ñi am solo am njëriñ la saraxa moo tax mu ne yàlla ci boppam moo ma tegtal boppam su ko defee nag may yaxal ay téere di ko bind lu mel ni xasida yi loolu mooy saa nusoos wala yi nga xam ne wax yoo xam ne da ko wax ba noppi saraako ku ne xam ne suñu tubaab benn xasida yoo xam ne bi ko bindee ba noppi da jaral mu saraxal ko boppam mais biir xasida yi moom xasida yi ñuy jàng moom saraat ko loolu lu jëm ci wàllu tawhid wala fiq wala tasuf yi ci bëri yoo xam ne da ko saral boppam lenn ci ay ndinkaan ba tey da ko saral boppam kon yàlla na ma ci ñi nga ay sàcckat lañ képp kuy ab sàcckat lu nusuus nam mën naa nekk ñiy sàcc wëy ñiy sàcc mbindam jàmbur tabaaraka lu ñu al intihal te borom ma xam a jàngaloon ko te lu bon la muy fekk jàmbur woy nga jël wëy ba noppi defe ne yaa ko fekk nit saraxa nga jël saraxa ba noppi defe ne yaa ko saraxa loolu ba tey wëykat yi dañ koy bañ ah, ndax loolu moom bokk ci jom nit ki moom li nàcc ci xelam bàyyi ko ci xolam rek waaye lu booy ko ci xolom jàmbur moom bu ko askanee sa bopp keneen na ko wëy kon dalan yee tegtal na ma allah yàlla ali boppam saa nusuus mbir moom mooy borom yaxal yaxal mooy bind ay téere wasa suróñ tey borom sara sara mooy ngay leeral téere yi nga bind wakafaan yee fegal na ma lu suus ñuy tuddee ay sàcc lam yen hu jubluhul qalbi sama xol xayra tawhidil ahad lu dul wéetal yàlla muy kenn wa niyatil xayri ak yéene aw yu képp la daa kulli fa képp ak kenn mooy fa mbindeef yëpp mu sama xol dara nekkul ci lu dul wéetal yàlla muy kenn du xalaat lenn lu dul wéetal yàlla muy kenn ak képp kuñ naan doomu aadama rek ma yéene la aw yiw niyetul xayri dañ tubaab ko bëgg la waaw niyetul xayri wa niyetul xayri ak yéene aw yiw la daa kulli aat fa képp ak kenn sëñ Tuubaa ñi ko bañoon sax daf leen yéenoon aw yiw waxuma la ñi ko bëgg de wala ñi mu bëgg de waaye ñi ko bañoon sax bam xam ne moom sëñ Tuubaa ñii bañ nañ ma daf leen yéenoon aw yiw képp yuhibu dana bëgg fii laay ci yàlla fii rasuuli ak yonent bi xal bii sama xol waxala data saxal na lii ñel ma xay rasuuli ngën gi ab laaj mu ne sama xol bëgg yàlla moo ci nekk ak yonent bi te du ci mos a dëñ te bëgg googu ma bëgg yàlla wallahi moo ma womatal ngën gi fajuk aajo moo saxal ci man ngën gi la ma doon laaj yàlla bëgg gi ma bëgg yàlla ak yonent bi tabaarakallaahu sama xol ci boppam nga xamee ne moo bëgg yàlla bëgg gu sax bëgg yonent bëgg sax nee na moo tax nag ngën gi ab laaj sax ci man yooyu ba dana bëgg fii laay ci yàlla wa fi rasul ak ci yonente bi xal bi sama xol waxala te saxalal na lii ñeen ma xayri sooli ngën gi ab laaj loolu maxnaa bi rek mooy soo ko firee mooy moom képp ku muy bëgg dafa lay bëgg ngir yàlla ngir li nga gëm yàlla rek ndax mooy moo tax ku nekk ci yàlla rek ak yonent bi rek faaw sama xol moom la bëgg waaw nekk ne maanaam moom dafa bëgg yàlla ak yonent bi waaye képp ku nekk ci yàlla ak yonent rek dafa lay bëgg ngir la nga bëgg yàlla ak bëgg yonent bi bayit bi moo koy firi buux diya ba tey sama bañ fii laay nekk na ci yàlla wa fi bi ak ci yonent bi ah samani musal na ma moom yàlla min hiya lil xabi yi ma mucc ci pexem aji réer ja mu ne ba tey su may bañ nit dafa fekk kon kooku la yàlla bëgg nekkut ca la yonent bi bëgg nekkut ca su may bëgg nit itam dafay fekk la yàlla bëgg mu nekk ca la yonent bi bëgg mu nekk ca kem kàttanam sama xol moom kooku bu dana ko bëgg waaye ki nga xam ne moom la yàlla digle nekkul ca la yonent bi santaane nekkul ca kooku dama koy bañ ngir kooku dafa bañ yàlla ndax ki gën a bañ yàlla mooy koo xam ne la yàlla digle nekkul ca kon man su ma koy bañ loolu mooy tax ama nit moo tax ñu nit kenn du ko bañ parce que xamul tax léeg-léeg nit nga gis nit ku bañ nit fekk jukku jëla bañ waaye bu ko yoon sens rek mu bëgg ko loolu boo xool ñaari way denc da nga ko ci fekk jigéen góor waaw nga xam ne tey nit ki mën naa takk nit dem ba gis jukku ju bon ci moom mu bañ ko ba far sax fase ko waaye bu soppeeku woon rek mën na koo bëgg kon gis ko kon Sëñ Tuubaa nee na ku may bëgg ci yàlla ak yonent bi ci la lay bëggee ku may bañ ci yàlla ak yonent bi ci la lay bañee ngir li nga bañ yàlla ak yonent bi kon buxdiya sama bañ li la fii laay nekk na ci yàlla dégg nga buxdiya sama bañ fii laay ci yàlla ak yonent bi azamani musala min hiilil qabi mu mucc ci pexem aji réer ji alxëb yi mooy koo xam ne dafa réeree mbir yëpp te wutul ci dara xamul ci dara dégg nga te loolu mooy iblis kon ku may bëgg daal ci yàlla rek li nga bëgg yàlla ki may bañ ba tey li nga bañ yàlla mooy bañ koo topp baraati samak set mina saxaay ci texe di kutibat bindees na ko wasabat sax na dàkk xendra bi fa sama borom falaaye samak texe mu ne set gi ma set ci texe di di max naa mooy texe yi di huma loolu yàlla bind na ko ca umul kitaab ca lawhul mahfuz te du ko far mu ne sama texe ba tey yàlla saxal na ko fa moom bind ko te dootu ko farate yasuru dana bégloo xayral aalamiina ngën gi bindeef abada fo xomri sama dund te waxeen doxoo nekk na fa moom widaa di sama cofeel ubbi daa saxalees na ko bu la neex nga ne wa ubbi daa saxalees na widaa di sama cofeel xen doxoo fa fa moom ngën gi mbindeef mu ne ngën gi mbindeef sama dund da koy bégloo loolu mooy bi baxaa iya yesuru ahmada ngën gi mbindeef sama dund da koy bégloo dundug sëñ Tuubaa du dañ mukk di bégloo ngën gi mbindeef ndax sëñ bi moom heure bii mu ngi fi ba jamono ji may wax ak yéen sëñ baa ngi fi ba léegi yonent mi ngi békki jëmam ji ngir lim lim liggéeyal yonent sallallahu alayhi wasallam te loolu du fi mos a jeekoo fekk aduna ngi am alxuraan a ngi fi waaw moo tax ne sama dund dafay bégloo ngën gi mbindeef sallallahu alayhi wasallam waaye cofeel gi nga xam ne moom laa ëmbal yonent bi mu ne loolu dafay sax yonent bi itam cofeel gi ma ëmbal dafay sax cofeel gi am ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu am ko ci man te ñun ñaan ñëpp suñu cofeel yi dañoo tëqaloo te duñ tàqaliko loolu fay day sax du dogle bokk na ñi nga xam ne dañuy soppante tey suba ñu daggante baa ñu xuloo boo ubbi daa saxales na xen doxoo fa yonent bi wi daal di sama cofeel ah koo xam ne ni kay sa dund dafay sa dund dafay bégloo yonent bi kooku faaw seen cofeel dañuy taqaloo dañuy def at tawaasulu muy jokkoo waaye duñ def mukk al infisal ibadati samak jaamu hendal jawaari fa faggaal ya al munsaat yadu yuñ sos fil bahri ci géej gi ci biir géej ga sans saxat dàq nañ la xëyri mu jëm ci firun man as sayi at lépp luy ñaawteef mu ne jaamu ya ma doon jaamu yàlla ba ma nekkee ci gaal yi nga xam ne al jawaaril munsi at munsa at moom lañ leen tuddee loolu mooy li alquran di wax wallahul jawaaril munsaatu fil baxri kal axlaabi yàlla ci boppam moom rek ñeel na ko waxdahu at tasaruf fii sufuni al jaariya fil bihaari mislul jibaali xam nga boo xoolee gaal guy daw dafay mel ni ci biir géej gi ni muy soppaxndikoo loolu yàlla moo koy wëlbati gaal yi gaal gi di daw ak yoon wu muy mel ni ab montagne al jawaari mooy as sufunu al jaariyatu ad daqmatu al munsaatu al marfuhaatu al asriati kal axlaay mooy kal jibaali fi azabiha ci rëyaay maanaam dafa mel ni doj dégg nga boo séenee gaal yi tabaarakallaa nit ñi nekk ci biir nekk ci biir ndox ma gaal ga yëkkatiku ah mel ni luñ baas ca kaw rëyaay bi mel ni rëyaay yu doj gaal gi yàlla moo koy soppandiku ci biir ci biir géej gi muy daw nu ko neexee waaw ah, <laughs> waa ji moom lam caam rek mooy kondir waaye yàlla moo tax da bokk ci yàlla defal doomu mooy gaal yi nit ñi di dugg toujours da koy nettali ci alquran mu ne jaamu yàlla yi ma doon def daal ci géej ga ba ma nekkee ca gaal yi ci gàttal mu ne moo dàq mu jëm ci fir man lépp luy ñaawteef kon xibaadati sama jaamu yàlla jawaar yi fa gaal ya al munsaat ya yuñ sos mooy gaal yoo xam ne dañoo kawe lool sama jaamu yàlla fil bahri ci géej ga ba ma nekkee ca gaal ya mu ne ah sax saa na li xëyri mu jëm ci furun man as say at lépp luy ñaawteef su ma muccee ci xeeti ñaawteef yëpp tabaarakallahu loolu moo ko waral mooy jaamu yàlla ya ma doon def ca géej ga ba ma nekkee ci gaal ya moo ma dàqal lépp luy xeeti ñaawteef laqananil hikma wal ahkama hadin hadani wa hukama laqanani sanama al hikma xam-xami njëriñ yi wal ahkama ak xàttiya haadin yàlla muy aji gindee ji nga xamee ne xaddaani gindil na ma boppam ca wa nafaata mu dàqal ma xukkaama woy xatt ñi mu ne yàlla ci boppam moo ma sax xikam xikam mooy xam-xam boo xam ne tabaarakallahu xam-xami njëriñ lañ koy tuddee yàlla nee ne yootil xikmata man yasaa'u wa man yootal xikma faqad utiya xayran kasira wa maa yasakuru ilaa ulul albaab ba muy wax ci xam-xam dara wa maa utitu min ilmi ilaa qalilan waaye bi muy wax ci xikam nee na man yàlla képp ku ma jox xikam jox naa la yiw bu bëri. moom ngay jàng ci alquran léeg-léeg bu yàlla waxee ne rabbana wa fas fiim rasulan minum yetloo ba ay jëd daanu nga dégg mu ne wa yuallimuhumul kitaaba wal hikma fu mu tuddee ñaareel kitaaba rek wal hikma tabaarakallahu da nga gis sunu borom subhaanahu wa taala tudd ko ca dégg nga wa yuallimukum alqur'ana wa sunna wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamuna min umuri dinikum wa dunyakum kon yàlla mi mu wàccee alquran ci ñun daf ñoo digal lépp lu baax tere ñi lépp loo xam ne xëyti rasaa'il la ak luñ fëkk lu bon mu xamal ñi nag ci téere bii di alquran niñ koy toppee ak sunna waaye mu xamal ñi loo xam ne xamuñ ko woon sax ci suñ mbiri diina ak suñ mbiri aduna kon hikma xam-xam la boo xam ne bu sakkan la waaye mu ne xeeti xàtt yépp suñu borom sanama ko lépp luy xàtt rek yàlla sanama ko kon Sëriñ Tuubaa xàtt yépp la xamoon loo ko laajaan ci xeeti xat yi yàlla ci boppam moo koy jox tontu ba wax na ko ci beneen xasida yàlla moo ma tabe nga xam ne barab bu mu jotee rek moom Sëriñ Tuubaa laaj yi luñ bari bari laaj bu ñëw yàlla koy tontu laaj ba dégg nga yàlla moom nag moo ma dàqal xàttekat yi te loolu nag ñu ci jublu nasaraan si nga xam ne ñoo ko doon xàtte yóbbu ko ndarak ndakaaru fu ñu yóbbu ko fa laxana li sanama alhikma xam-xami njëriñ yi wal ankama ak xàtt ya lépp loo xam ne xëyti xam-xami njëriñ la ak seeni xàtt ya yàlla sanama ko xamal ma ko te du ma ko fàtte xaadin yàlla muy aji gindi ji moo ko def xadaan yi moom ñi nga xam ne gindil na ma boppam wa nafaata mu dàqal ma hukkama woy xàtt ña te loolu moom rek la ci namoon jasa ba joddil na lii jëm ci man man ka nga xamee ne baaxa jaay naa ko xani mu jëlee ci man sama nii sama njëb xan mbir moom muy aji njëkkantu moom njëgga li ñëw ci man fataaba tey na samani sama jamono nee na ñoddeeku na ñëw ci man dégg nga tukkee ci yàlla mi nga xam ne jaay naa ko marchandise njëgga ci boppam moo moo dawal boppam ñëw ci man njëg gi ci boppam dafa dawal boppam ñëw ci man moo tax nag sama jamono tey na sama jamono yëpp tey na kon jasa ba ñoddi na lii ñi jëmee ci man man yàlla mi nga xam ne baax na ko xani mu jëlee ci man sama ni sama njëg jaay naa yàlla marchandise tabaarakallahu marchandise moom nag njëg moo ñoo de ñëw ci man Moussa Diagne di aji njëkkantu lii ñëw ci man ba teey na sama ni sama jamono kon xasida googu foofu la yem mooy gim tënkee wa sayida lii bi bàyyi laaj. dafa waxoon yàlla nag na ko ci tarjumaan ji njëkk ja wa kaana lii abadan bi maay suru nii waaye wa sayida lii bi bàyyi laaj nag ma nekkal ci loo xam may bégloo waaye nag ma seedal jaay gi ma la jaay waaye wa bi kaw ni ma ak nekkuk la nga xamee ne aqastoo jëlee naa ko min haasil huruf ci yi xaraf samanaha seeni njëg ma ko seedal siran ci lu nëbbu alaaniyatan ak ci lu feeñ abadan foofu amin yàlla nga nagu ñaan yaa man yow yàlla mi nga xamee ne baaxaa jaay naa la ko jaay naa la marchandise man nii nga jëlee ko ci man wastara ta nga jënd ko mini ci man yaa man yow mi nga xam ne baaxaa jaay naa la marchandise ma xan nii mu wëlis ma mooy mu sëri ma wastara ta nga jënd ko mini ci man yàlla ba tey li nga xamee ne jëlee naa ko ci yi te loolu mooy xasida gi rek lim ci nettali ci biir yëpp di wane ne suñu borom jox na ko njëgg bayit bu njëkk bi rek dégg nga ko wasala li xat an jamio samani mi man loolu wara wakkulu samani kon yàlla nag ma seedeel li nga xam ne dama koo tënkee xaraf yi nga xam ne moom laa tënkee wa saydali bi bañ a laaj li mu ciy wax ci biir yëpp na njëgg jox nga ma ko maa ngi lay ñaan nag lépp nga seedeel ma ko maanaam lépp loo xam ne jëlee naa ko ci xaraf daal maanaam njëgg moo xam ci lu ak ci lu faw yàlla nag ma seedeel lépp rek yow mi nga xam ne jaay naa la marchandise ba noppi nag nga jëndee ko ci man nga ko ci man ma di ko nettali ci xasida gi nag nga xam ne moom laa tëkkee seedali bi bay xalaaj bi bay xalaaj yàlla seedal ma lépp kon léegi dafay dugaat ci geneen xasida ba tey ba tey loolu lay seedaloo yàlla rek da ko seedaloo jundu laay xaaliboona fii moom malaayka yi la ci namu ndax xasida gi da ko tënkee wa asaada junduhoo bi saa kon lii muy nettali ci xasida gi ñuy bëgg a firi si dafa wax yàlla ci boppam na ko sa sa soldaar yi ci boppam nañ ko seede sa soldaar yi mi malaayka yi suñu mi nañ ko seede moo tax mu tënkee ko wa asaado junduhoo bi saa na nga seedaloo sa soldaar ci lii muy xasida gi li mu ciy wax nga xam ne kon malaaka yi seede nañ ko ne lu am la waaye ni ko suñu borom seede noonu la ko malaakaam yi seede